ñoo ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di baal ñëpp àq di baalu ñëpp àq ci weeru koor yu ñu nekk tey nag ku ne xam na ne fii li fi xew mooy directoire des femmes départementales ñoom ñoo organisé conférence suivi de don ndax bii mooy suñu 11e édition macha allah ñuy ñëw suñuy càmmeñ di ñu jàppale li lépp luñ ci am ñu jël bokk ko ak askan bi ba tey ñu ngi ci suñu fukkeelu édition ak benn léegi nag occasion bi ñu ci profité di sant di gërëm di remercier suñu coordonnateur départemental mooy le ministre d'État Augustin Tine di sant tamit di gërëm suñu xarit suñu càmmeñ le président ab du Mbow ndax vraiment lii fi lii fi taxaw yëpp moom la ginnaaw yàlla mën naa ne moom la di gërëm tamit le ministre Abdoulaye Daouda Diallo jàpp na ci bés bi di gërëm tamit le ministre Amadou Ba premier ministre jàpp na ci bu baax a baax a baax ak le ministre Aly Ngouille Ndiaye ak le ministre Mansour fay ñu ngi leen sant di leen gërëm di remercier autorités yi dëkk fii Thiès ñoom docteur Pape Amadou Ndiaye le ministre Abdou faal ak Maodo Malick Mbaye yónnee ne une forte délégation ba pare jàpp nañ ci. di remercier aussi la première dame fondation Servir le Sénégal vraiment jàppale nañ ñu mosuñoo seetaan édition bu ñu def jàpp na ci. di remercier ñepp xamna né du ñak ma am ñuma faté peut-être ñi dinañ ci àgg pour ñu xamné ñun li ñuy def askanu ties motax ñukoy def dafa joxo ngi suñuy bop dafa joxo ngi suñu militant ndax ku ne xam na ne président Macky Sall dafay décréter ren année sociale ba pare ku ko xam xam ne ci social rek lay dox am na gox ak goxaat yoo xam ne ak ruq yoo xamante ne loxo mënu faa àgg ñun loolu la ñu bëgg ñëw saafara nii looloo waral lii tey ñu ci sant ñëpp di ci tàllal loxo ñëpp bii mooy onzième édition bi dañ leen tàllalaat loxo pour ñu gën a édition ndax ñun mu ci génne rek dañuy commencé ñun jigéen ñi di cotiser am suñu kees leneen lu ñu doole ñu jël maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di remercier tamit famille ñi àndal membre directoire bi Maguette Koboor mi ngi ni mobilisation moko géré Tëngu Gueye mi ngi ni aussi momit mo géré ci social bi la bok ñom Dieng Gueye ñom Oumou Adja Seyna bu jégen ñom ñepp ku lim juum daan vraiment content nañ ci taxaway bi wax deug Yalla waaw li lu bax la moy li ma wax rek ndax tamit ku wax. kër wax jigéen kon a xam na ne jigéen ñi dëgg la góor ñi dinañ joxe dépense mais lu ci bari jigéen ñee koy dolli ñoom ñooy daw jigéen ñi ñu ngi ci marché yi jigéen ñi ñu ngi ci fépp kon yaakaar naa ne moo tax it boo seetloo fii ay jigéen rek dafa gis kon ku wax social tamit wax jigéen looloo tax ñun en tant que jigéen ñu porté combat social boobu waaw déggoo li ma la wax directoire départemental Benno Bokk Yaakaar directoire bi ñëpp ngi ci ak APR ñëpp ñu ngi ci waaw. fi mu toll nii amagum nañu 30 30 tonnes la ñu amagum dañu ngi xaaraat yeneen ndax bâche yi ñoo tax oto yi mun mënuñoo ñëw di wàcce ndax dañuy commencé di joxe tey ak suba ak gannaaw suba. don euh, yi dañ koy jox euh, néew ju doole yi ndax ku ci nekk koñ ba nga dëkk am na koo xam ne xam nga ko fa nga xam ne soxla na ndimbal bi. dañ lay wax nga indi ñooñu ñu noonu la ñuy def ku ci nekk dañ naan la koñ ba nga dëkk boo xamee ku ko yeyoo nga indi ko ñu bind ko après ñu woo la nga yóbbul ko waaw. asalaamaaleykum man la màgget Maguette Koba responsable Benno Bokk Yaakaar Thiès Est maa ngi leen di nuyu ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam di rafet lu bésu tay bi nga xam ne moom mooy suñu onzième édition ñu koy def. yàlla dogal ni defuñu ko dara lu dul dimbale sunu mbokku jigéen ñi ak sunu mbokku néew di doole yi chaque année dañuy dajaloo def social boo xam ni dañ koy jëmale ci nit ñi. ñi nga xam ne ñun ñooy njaboot président Macky Sall ñi nekk Thiès te nga xam ne président jotewul foofu ñun ñi nga xam ne ñun ñooy ay loxoom ñun ñooy def organiser wu boole suñuy doole jënd suñuy don jox leen ko loolu daal lan ne woon moom moo ñu fi dajale tey. am na nañu trent tonnes di gërëm ministre Augustin Tine di gërëm président Abdou Mbow ndax lépp nag moom la di gërëm Maodo Malick Mbaye di gërëm docteur Pape Amadou jaay ministre di gërëm PM Amadou Ba di gërëm euh, ñëpp daal ku lim da ngay juum mais doo matale waaye li nga xam ni moom nii la def képp ki nga xam ni yaa ngi yëngu ci président Macky Sall nga nek ci benno bokk yaakar bi japp nga ci duul nga ci solo kon dañuy jaajeufal ñep di sante ñep di gëreem ñep waaw parce que première dame mom mom moy soxna moy soxna njitu rew mi jabote ñep tegam nak mom moy soxna njitu rew mi njabote ñep amul xajja amul sen tulul way di def mu duggal ci loxo mom motax ñu jital ko tuddé ko sunu bes bi té nak wax deug yalla def na ci lu mu def na ci lu mu mën ñu ngi koy gërëm di ko sant di gërëm président Macky Sall di ko wax ne ñun njabootam gi nekk Thiès ñoo ngi taxaw takku. doo woote jàmm wa